di gërëm waa société bi it ci taxawaay bu rafet bi ndax ñoom ñëpp contacté nañ ma di samay avocat nga xam ne defe naa ñaari fan yii di ñu génn ba ñett yi euh, daanaka ñu ñoo yendu ci liggéey ci liggéey bu xaw a métti loolu sax moo tax teelu ñoo àddu wax parce que mbir bu jibee ta doon mbirum yoon balaa nga ciy sori dañ ciy wax ak ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu am na ci ñoo waroon teew tey am gàllankoor ñoo nekkoon ba sànq 18 waaye maître Tall mi ñëw na teewal leen di wax ni woo nañ leen ci waxtaan bu gàtt boo xam ne jàpp naa ni lu mun sa ñàkk la ñu wax ak Sénégal yi li tax tey nag mooy tey la ñuy doog a pare li doon waxtaan ak liñ doon tëral sama diggante ñi nga xam ne ñoom war a defendre ci li ñu nekk ni muy samay avocat dëkk bi wala réew mi su ma nee réew mi nag mooy réew mi ci biir comme ñi ne ci bitim réew defe naa ñetti fan yi benn wax rek moo ko lëmbe ba am na yeneen ak yeneen yu jiboon ci jamono yooyu kenn talatu ko waaye li gën a garaaw mooy comme dañoo nekk ci réew moo xam ne li tubaab di wax fait dafay occuper nit ñi bëri na xam ne ci farata woon ci situation réew mi kenn talatu ko ngir wax googu wax ju toll noonu nag bu jógee ci réew ba yëngal réew ma yépp defe naa ñi mu concerné war nañoo jàkkaarloog Sénégalais wax ak ñoom mooy ban wax. mooy tuuma gu ñu teg ci deru Ousmane Sonko di chef de parti bu ñuy tuddee PASTEF di député à l'Assemblée nationale ne dafa siif ab gone gu jigéen ni ko ki doon introduire waxee léegi kooku du wax ku ndaw ndax siif dafa am lu méngool ci tëralinu yoon ñu ne nag dinañ ci joxe suñu version wax ak Sénégalais yi ci wax joo xam ne dañoo bëgg mu lalu ci dëgg bëri na yoo xam ne wala li ci ëpp ci Sénégalais yi kenn mun ci li ñu gis ñun ci waxtaan yéeg ci commentaire yeeg ak yu mel noonu la ci ëpp kenn mënul dugal seen bopp ni surtout ci Ousmane Sonko génne ñaari fetal joxoñ ko nit ne ko di nga tëdd ak man forcé benn yoon koo def dem ba mu neex ko mu dellusiwaat ak ay fetalam joxañaaj ko même personne bi euh, imposé ko li mu koy imposé naat dem yoonam ba mu neex ko mu ñëwaat def ko ci bërëb boo xam ne la fa nekk ci ay nit nu mu tuuti tuuti war naa mat juróom benn wala juróom ñaar loolu lu yéeme la moo tax gëw ma ni am na sénégalais boo xam ne loolu mën nañ ko dugal ci boppam mu des nag bëri na sénégalais yoo xam ne la ñuy laaj ñoom mooy donte gëmuñu ni loolu mën na am waaye moom Ousmane ko lan la doon def foofa ci bërëb boobu loolu naa ci andi ay leeral man am na loo xam ne bu mbir mi tëruloon nii duma ko musa wax ndax bëri nañu may àndal te xamuñu ko waaye nag ñi ma jege dëgg dëgg dëgg xam nañu ko mooy ñuy euh, ci dog-dog boobu yàlla da ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju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 ñaareel bi ndax man sportif laa mësa doon na ngay def sport waaye lépp luy sport de contact nanga ko bàyyi karaté bi nanga ko bàyyi football bi na ko bàyyi basket bi nanga ko bàyyi parce que àndul ak li ngay def ñetteel bi mooy saa su la douleur yi sonalee na nga def séance de massage mu soulager la ñu commencé ci loolu 2007 laa commencé def des séances de massage jamono jooju ci benn cabinet bu nekk ville bu ñuy wax docteur Siklawi di fa def ay séances de massage diggante boobook tey tenté nañu façon séance de massage bu ne moo wax ni loolu bi may gën a nekk ndaw sonaloon na ma ba sama waajur bu jigéen fu ne yóbbu na foofu ba bi ma ciy fàttaliku sax ay Grèce yu yeew lañ ko mës a wax ne ko comme yeew yàlla may na ko gannaaw goo xam ne dafa nangu da ngay dem ut Grèce yu yeew di ko ko diw jamono jooju soo buggee jënd kii bu Grèce bu yeew bu ndaw bi 3000 francs la woon mu yoon lu metti ñu koy ut di ko ci diw donc commencé naa massage ci cabinet docteur Sicrawi bi ci am ay amélioration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 boo demee gis samay médecin dañ ma ne bul jël risque boobu mukk parce que gis nañ ñu essayé laal loolu ci ay opération fa la ñu jógee ba léegi wala ñu paraplégique parce que dafa jege trop yenn neer yu sensible yi waaye hygiène de vie bi ñu la santoon na nga dellu ci loola ndax nee lañu gën ngaa def say séance de massage bi demee noonu buñ ci jógee suñu benn médecin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 ci kaadru ay jàngoro yu ma yor yu ma sonnal waaye nag bi ma demee ci bërëb sàngam ay jigéen ñoo fay maase loolu loo ci xam mu ne ma su dee faju moo la tax a jóg loolu ayul ci diine dafa mel ni jigéen bu dem seeti un gynécologue walla nga dem hôpital feebar ki la war a opérer wala ki la sa der wala nangam nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem deux jours plus tard def sama première séance kon li tax ma dem foofu benn bi mooy du un institut clandestin institut bu am agrément la état bi reconnaître ko mu ne def tableau ne fii dañ fiy def massage daal di def ay numéro de téléphone am ak euh, nu euh, ba pare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 ñetti yoon ba ñeenti yoon loolu est-ce xel mun na koo nangu ba tax nag li ma bëgg a wax mooy lii ab complot la ab complot la boo xam ne ki ko suuxat te du kenn ku dul Macky Sall moom ci boppam du koo xam ne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 pour essayer wane ni mbir mi du mbirum politique waaye c'est une affaire civile moo tax ñu jox consigne seen militant yépp ne leen bu ci kenn àddu lu ngeen lu ñu ci leen wax rek ne leen c'est une affaire civile waaye c'est une affaire privée waaye mbir mi du affaire privée mbir mi affaire la bu ñu nas boo xam ne ministre de l'intérieur ci boppam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 beneen bi tax ñu wax toujours ci complot mooy yéen ñëpp dégg ngeen garante bi def beneen masseuse bi confirmé ko ni moom ay nit la doon waxal ci biti keroog bi ma paree ba génn dafa nañoo ñu ñëw leen jël si ma ñu ñëw ànd ak seen i ñaari katkat yu ñu kukk à 22 heures ci couvre-feu bi yenn ko yóbbu ko vers une destination inconnue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 parce que waruloon génn fi mu ne fa la waroon fanaan foofu la mës a fanaan depuis couvre-feu ba léegi ni la mu a woote ay nit ñu jël si la ci heure boobu nga dem ñu yóbbu la à destination inconnue am na lu ñu ci xam sax waaye duñ ko waxagum comme ni ñu ko waxtaanee ak avocat yi pour dem def li ngeen di def. wax naa waxu message bi message boobu musul am je mais mets au défi. ilaa yow mi diin fu ñu génnee message boo xam ne man yónnee naa ko ndaw soos ne ko maa ngi ñëw loolu lañ ciy wax pour le moment am na yeneen ak yeneen waaye bi ñu waxtaanee ak avocat yi dañ ñu ne comme ñoom dañoo nekk ci def nañu seen mbir gis ni mbir mi nag dafa mel ni bëri na ay fay ñuy essayer di rectifier kon ñu nit ci suñu défense am na lu bëri loo xam ne doo ko wax parce que dal ñu permettre ñoom ñu tëb ci loolu kon mbokk yi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 waaye projet soppi réew mi la de manière qualitative mooy lépp loo xam ne jàngoro guñ doon jooy la indépendance ba léegi ñu jële ko fi nag sénégalais bu nekk xam ni projet boobu la comploteurs yi bëgg faagaagal est-ce que loolu sénégalais yi dinañ ko nangu est-ce que suñuy militants suñuy militantes suñuy sympathisants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 wala dara jaralu leen dara may wax suñuy ndaw suñuy ne leen caaxaankat yàq nañu réew bi yàqat toog ci nguur ak yàgg ci nguur lu mu leen jaral rek ñun ñu ba tootul ay commentaire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 te sénégalais yu baax ak patriotes yi ñu ngi fépp comme am nañu firnde ni moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu Ousmane Sonko ñëwee na ngeen ko jàpp mandat de dépôt immédiat parce que la bëgg mooy fexe ba làq ma ba dootuma mën a wax loolu tax ñu wax tey jàkkaarloog sénégalais yi wax leen suñu version loolee moo tax ñu ne